mais sama gars yéen fa leen demoon balaa ngeen fee jógee tey di ngeen ma wax fan ngeen nekkoon. mais taxaw naa fi di leen xaar ba ba tey jaay naa. wala mais mais oui ma wax leen foo leen nekkoon. <laughs> gars yi wax leen foo leen nekkoon. yee tey mon animateur préféré avec les jumeaux PNJ ñu bëgg wan population bi li ngeen di liggéey wan àdduna wan ñi nga xamante ne bii ñooy fans PNJ lan ngeen di liggéey loo xamante ne bii mu ngi daw ci àdduna bi léegi dañuy dugg ci biir. ngeen wàññu li ngeen mën yéen Sénégal non ñoom nag Sénégal ils sont là <laughs> ok. mais da nga waroon tàggoo ko ba naturel nee damay bett man xoolal ñëpp lay bett quand qui il fait partie des meilleurs amis de PNG. Mhm. tout le temps il est ici à la maison presque kër gi la ok ngi lay ah? ok. mon animateur avec les jumeaux PNG spécial naturel dañuy dugg si biir wan leen lan la ñuy def. PNG ñu lay laaj nan nga leen di xàmmee. PNG da ngay xool rek am na ku dëgër bopp am na ku dëgërul bopp. noo leen di xàmmee ñaari seex yooyu. noo ñoom ñaar ku nekk dafa am couleur préférée Pierre mooy bleu Jeannot mooy rouge. Pi moo nekk kii sol euh, lu rouge tàmm sol lu rouge li Pi mooy kii sol lu bleu li. Pi farceur la. J. comédien là, Mickey. mais eh, boo leen di déglu ci rajo bi seen voix yi di nga leen ah non non du ma leen xàmme. ah bon déedéet. ñoom ñaar daal PNG dal, xam nga des fois nga ne kenn ki pii sax mu ne la wax ok kii nga ne ko ji xam nga mooy mais est ce que boo leen di déglu ci rajo bi quand même di nga xam voix yi kan ay kan. waaw su ma leen déglu ci rajo bi tamit waaw mun naa ne mun naa xàmme seen voix tuuti rek. Et eh, merci de nous rester fidèles sur carapic.com. Je suis très heureux de vous retrouver. Ce soir, mon animateur préféré revient désormais comme les samedis et les mercredis. qui sera l'invité d'aujourd'hui duma leen ko wax xool leen bu baax les jumeaux ah, PNJ moom ngeen am tey ci émission mon animateur préféré sama gars yi déggee junior ay <laughs> ah, ak ñoo métti boy ñaari boy yi lañu def maa ngi andi wër naa leen ci dëkk yi ba sonn gisuma leen <laughs> tay am nga ñëw quoi amatu uh, png uh, dama leen di bàyyi ngeen présenté wu population bi yéen ay kan fan ak ci nan ya comme tu viens de le dire c'est png bien sûr mais avant ñuy démarré dama lay laaj kan moo siy pii kan moo siy ji non fa la man nag mooy pii non wax ma kan mooy pii kan mooy pii yeah, alright, right. All right, donc, hein? yeah, l'UCP, moi, c'est G, le tout ça donne PNG. Bah, non, xamé nga ñu bravo à toi oui. quoi. Gars, junior xamé non, Gars, bu ñëwé Non, couleur yi moo quoi. Dañ leen G mooy sol rouge puis c'est le bleu. Xam non, loolu la fa démé quoi. Ah, ah. <laughs> Alors, sama gars, dama leen di bàyyi ngeen wax ma tuuti carrière. Yeah. Animation. question Yeah, ah, G, hein. Ah. Yeah, ben tout d'abord, on va se présenter. Ben moi, c'est Monster G. Mon jumeau à ma droite, lui, c'est Master P, le tout ça donne PNG, The Twin CDJ. Donc, on est animateur euh, à la télé, on présente des émissions à la télé. Voilà, on anime aussi à la radio, donc ça fait deux. Et puis on est disque joker dans les clubs, dans les boîtes de nuit, dans les salles, les plus populaires, les plus fun, les plus blanchis de carna Donc ça fait trois boulots totalement différents. Voilà, présenter des émissions à la télé, faire le show à la radio et animer nos propres soirées. Donc ça fait trois métiers totalement différents. Donc voilà quoi. En quelque sorte, en grosso modo, PNJ, c'est qu'ils font dans la vie quoi, en quelque sorte. Euh, bu ma jógee si J damay ñëw ci Pi. Pi man loo bëgg xam mooy yéen ñaar en tant que jumeau lan moo leen dugal ci animation bu doon bàyyi J mu <laughs> si si si bon J su ma ne woon dama koy bàyyi benn affaire xam naa football laa koy bàyyee quoi. Mhm. parce que moom ku bëgg football la suñ ne woon euh, Pi wala ci ay animateur lañ ay DJ lañ sax doo ko gëm sax. Eh, kon après nga xoolal ma fa benn bal. Ah, waaw gis nga gis nga gis nga donc juste pour dire que aujourd'hui PNG ils ont. ils ont démarré très tôt aujourd'hui euh, le milieu de l'animation. Pourquoi Parce qu'on avait un grand frère qui était amoureux de la musique, qui, était amoureux de ça, c'est-à-dire de tout ce qui est sono et tout. À chaque fois que notre papa nous donnait, par exemple, de l'argent de poche, lui, son argent de poche, il achetait une sonorisation ou bien des CD et tout. Il était amoureux de la musique. Il s'appelle DJ Noël. Alors, euh, on s'est décidé lors de nos manifestations, c'est-à-dire les fêtes de Noël entre copains et copines, les fêtes de Pâques, les fêtes de 15 autres pourquoi pas lui, Didier Noël, animer nos propres événements. C'est ainsi de suite qu'il a commencé à animer nos soirées. On était dans l'organisation et tout. On organisait, lui, il animait. Il n'y avait pas de mix PNG. PNG organisé, Didier Noël animait les soirées.

duñ fi nekk non non on va essayer de changer de style de changer de comportement. bien de tricher. ouais ou bien d'essayer d'une autre d'essayer d'être une autre personne PNG bi nga que tey si néeg bi ñuy malak de la jàppise non comme biir bi dafa fin de Non là il lañ lay de tey son ñu wooyee radio quoi donc il y a pas de changement on est naturel en nous-mêmes on n'essaie pas d'être euh, moi loolu quoi. ji. Yeah. gis nañ ne yow yaa ëpp mixé quoi. Alright. bon parce que. gars yi une ngi de di Yeah. mais xamuñu exact waaw jus moom nan lay def ba mixé quoi. <laughs> léegi man li ma bëggoon xam surtout man sax man mixé bi daf may jaaxal parce que soo xoolee. Hmm. son yi bokkuñu même tempo. yaa son yi bokkuñu même couleur. ok. ban style nga am bay jaxase son yi noonu ba nga xamante ni dañuy mel ni ñu bokk nday ak baay quoi. <laughs> alright alright donc euh, animation dafa nekk loo xamante ne soo ko bëggul doo dem quoi. Hmm. faut l'aimer d'abord ce que tu fais quoi en fait le métier que tu exerces faut l'aimer d'abord. et on aime la musique et on sait ce qu'on fait quoi en quelque sorte. Et puis avant d'être animateur, on était des gens qui venaient à des teufs comme ça. Donc on savait ce que la jeunesse aime quoi en quelque sorte. Donc à travers ça, euh, on essaie de faire en sorte de donner le maximum de plaisir à ce public, ce beau monde euh, qui se rend tout le temps à nos soirées. Donc, ce qui fait que nos mixtapes, souvent, c'est des jeunes qui viennent à notre teufs. Donc, euh, on leur propose, c'est-à-dire euh, les actualités, les nouveautés, les tubes, les sons qui cartonnent, quoi. Et en quelle sorte, euh, il y a le RB, le reggaeton, dancehall, raga, voilà, coupé décalé, des sons qui cartonnent, qui font bouger le public quoi. FM Dakar. 99.9. Mhm. Je dangay indi comme quoi que les les amis invisibles loolu dañ ko gissone quoi nga ko doon def bo ñu dem ba ben moment gisatuñ ami invisible yi ban problème nga ci am wala ban lan nga ci am ba tax gisatuñ ami invisible yi le leer day déglu leen déglu leen dana leer waaw ça c'est une très bonne question hmm. aujourd'hui, le concept ami invisible, c'est quelque chose de très simple. C'est parti de Pi et de G. On s'est dit, aujourd'hui, c'est une émission radio tout le monde appelle. Il y a les enfants, il y a les jeunes, il y a les adultes. Alors pourquoi pas ces enfants, ces jeunes, ces adultes qui appellent Le fait d'entendre euh, une Aïcha, une Fatou, un Demba, un Paul, pourquoi ne pas essayer de faire euh, de les unir mhm. Alors on s'est décidé, J et moi, en réunion comme ça, comme ça, en discutant. Alors pourquoi ne pas créer une euh, famille à travers la radio, à travers les auditeurs, leur donner la possibilité de se connaître entre eux c'est ainsi qu'est née l'histoire de Ami Invisible. Alors, euh, un auditeur a le droit de nous appeler, un junior. Salut, je m'appelle Junior. Oui, Junior, tu es en direct. Alors, Junior, tu vas nous laisser ton 77. 77, mon numéro de téléphone, quoi. Après, Junior, bah, 77. Hein. Mm -hmm. ben Sali, ben Mounas, vous ñu woo moom tamit. Mhm. laajoon nañ ko set ñu ne junior léegi Sali mooy sa ami invisible à travers la radio. toi tu connais pas Sali Sali ne connaît pas Junior. Mhm. mais à travers l'émission de PNJ vous allez faire connaissance par des textos par des appels. mais vous n'avez pas le droit de vous voir tant qu'on vous invite pas à la radio. Mhm, souvent période événementielle dañ koy xaw a bloqué tamit euh, période nga on est dans l'événementiel moo ñu xaw bloqué mais tout le temps. Ça yu ñu un temps libre un temps disponible chaque dimanche on a l'habitude de donner tous les noms des amis invisibles. ok Ni ma koy la soo ba tey. tey lan nag dina ñëw. dimension bi lañ soxla fi mu toll nii mix bi ak parole yi nañ dem ci mix bi ñëwaat. Yeah, what's up, what's up, what's up, what's up, what's up? Alors vous allez avoir un aperçu euh, des mix de G euh, aujourd'hui. gars répétition est nulle hein every time Mais hardcore. vous avez eu un aperçu des mix de GGG hein, Mom Nilan, instant yi gàlle kenn every time matin midi soir section R&B section reggaeton dancehall coupé décalé mbala tout ce qui rime avec de l'ambiance chaude c'est lui qui assure ça Master Pina, tout ce qui est doux xam luy doux kabalove zouk moi, collé serré affaire une une yooyu le moment comme ko mais leneen lépp lañ ko quoi mais mais mais yow léeg-léeg le fait que ngay mixer euh, sound yu neex yi dooy am envie wàcc yu dem fecc waaw xam nga yëpp jaar nañ si quoi mais bon voilà quoi on essaie de se surpasser déjà li ngay def nii da nga am plaisir donc euh, dafa mel ni kon si que yaa ngi quoi. on a vu ko DJ yu bari. Uh-huh. dañuy dem ñu mixel leen ñu ñëw toog si rajo toog di gëmloo population bi ne leen. voilà ñoom ñooy mixé bëri na fi quoi waaw waaw waaw ma ñëw bett la ne la mixel ma sawaay ok ok ñu fi door ñooñ lan nga leen wax voilà donc comme li ma ko expliquer sank rek benn instant ne life yi coob la quoi en fait si soo fi triché tôt ou tard gars yi xam donc voilà donc ñooñu non di def lolu peut-être euh, tour lañ bëgg voilà mais dañu wara a xam ne affaire bi job la dès le bas âge quoi parce que lii yombul souvent gars yi gars yi dañ foog ne nekk si rajo teg musique la après wax non du lolu public bi ngay maintenir ba 4 heures du matin 5 heures du matin loolu job la. ma dajeeg benn gaañ ci mbedd bi ma ko laaj xam nga PNG mu ne ma waaw ma ne ko ñaata lañ mu ne ma ñett <laughs> ma ne ko kan ak kan mu ne ma P ak N ak J. ak J <laughs> waaw mais c'est <laughs> intéressant parce que N boobu mu la wax. Euh, ça signifie tout. enn boobu mooy yow enn boobu mooy ki ñuy seetaan nii actuellement enn boobu mooy ki ñuy déglu enn boobu mooy ki ñëw euh, suñu émission télé ki ñëw suñu soirée suñu concert enn boobu c'est très important mooy la MIFA PNG Family ngay def émission radio di teg benn concept xam nga ñëw émission tegloo gars yi son lii dafa dafa neex quoi dafa yomb tamit mm-hmm. euh, nga ñëw teg son mu neex et puis gars yi déglu mu jeex ko mm-hmm. mais lan ngay wax ci son bi la ay DJ yoo xamante ne la ay muuma lañ duñu wax parce que mënuñu ko jànguñu par exemple am ay DJ yoo xamante comme FM duñu wax jànguñu comprendre mais affaire dafa am culture quoi ñun dañuy PNG instant yi dañu am seen bac plus 2. voilà foog gars xam ne dañuy def marketing dañuy def communication dañuy jàng lu ñuy def nii foruñu ko. voilà kon gars yi foog ñuy bàyyi di tëtale souvent yàpp ak jën quoi benn instant damay ñëwaat ci habillement bi ah. mhm. parce que am na benn gars bu ma laaj ban tournage moo la gën a neex ci pëp ci tournage PNG bi Soxna FM wala RDB. mu ne ma boy biñ solee ak yëru olof quoi mu ne ma <laughs> fii ni nga bu pawee manqué dépense <laughs> ok léegi bu ñu ci Abima pourquoi yéen ngeen préféré Abima bi quoi par rapport aux autres DJ yi nga xam ne dañuy sol ngeen di yëre ngeen di tubay ngeen xam yooyu noonu quoi. J'ignore ñëw si habillement parce que moom moo gën a jekk. tout ce qui est habillement tout ce qui est habillement ça je le dis Hein. non non déjà avant. Euh, le plus habillement moom moo koy gérer peut-être dans d'autres domaines euh, tout ce qui est professionnel et tout je peux gérer ça mais tout ce qui est habillement à 10 minutes d'une soirée d'un concert euh, d'une émission télé c'est lui qui gère. waane rek moo koy wax caméraman mu jëlaat jam bi rek. simplement quoi dañ ko leseeral ni rouge noir xam ama voilà quoi. mix bi ah. yes. <laughs> yeah. pii nu mu ko waxee sànq pii mu musuma fàttale ko fu mu demee maquette wala fu mu demee boutique nii di jënd lu muy sol si kaw ba suuf bële la bëgg de su may dem maquette yi damay jënd rouge jëndal ko benn affaire bu bële si kaw ba suuf maa koy solal suma fàttale ko pii fu mu demee jënd kii si kaw ba suuf maa koy solal donc en fait moi personnellement j'y tiens quoi. parce que tamit dafa nice ngay génn souvent gars yi di roy su yow. ne kii PNG ah booyoo xam nga mooy loolu dañuy génn kenn du xam lu ñuy sol. mais voilà gars yi jox cër animateurs yi jox cër DJ yi ñu xam ne booy ñoo ngi job ñoo ngi ñoo ngi jëriñu si li ñuy liggéey tamit quoi. li ma ñëwaatee ci yow. dama ñëwaat ci yow quoi. parce yi nee nañ Pi moo la gën a ñeme micro bi quoi. comme nu ko gars yi di waxee souvent Pi moo la gën a ñeme micro bi moo la gën a yëg nii Pi moo la gën a baax Pi moo la gën a ouvert. loolu day am si jumeau. par exemple. puis comme gars ni nga ko waxee nii. puis maa ko gën a ñeme tamit mix yi maa gën a ñeme kii. yaa a tàng man waaw loolu xam nga day am quoi benn instant yi xam nga. Mm-hmm. man su ma waxee répétition lay doon. Mm-hmm. dama lay nettali benn anecdote boo xamante ne benn gel temps yooyu ñooy ñëkk ñooy nekk ay boy quoi. gel bi nii voilà quoi dafa mool nice nii chon. Mm-hmm. puis ñëw mbalak ko ay affaire yooyu ça va rafet ay affaire nu mu demee du genre comme ça mais lu mu wax boo bi après puis tamit ma ñëw dal si boy bi. mais man tamit ma ñëw xamoon sax na pii jaar na fa quoi. ñi ñaar gën a tàng. voilà léegi ma ñëw jaar léegi pii pii lu mu wax booy bi man même chose laa wax booy bi. gars bi ne xanaa ngeen ko déggoo ay mais mais effectivement lay doon quoi. gis nañ ne yàgg ngeen Soxna FM quoi. Mhm. lan moo leen fa téye. <laughs> bi ngeen fa yàggee nii am na rajo boo xamante ne yàggoo leen fa woon noonu de. waaw. man dama jàppoon ne huit mois yooyu expérience la woon. Lui mois eu stage la Lui euh, m'a eu de mon souffrance sax mais pour qu'on gis par exemple ben footballeur am nga jar jar tay bala nga gis Drogba Chelsea amoon na fenn fu jar mm-hmm. kon ñun dafa melni jar jar la won si ñun il fallait ñu Jar fofu pour mun xam lan moy milieu radio huit mois yu ñu Jar fofu on ne le regrette pas suñu première émission comme d'habitude concept bi moy une heure de temps qui moy mixé benen une heure de temps bi fii moy assuré quoi mm-hmm. suñu premier appel en direct premier auditeur buy PNJ, c'est une première émission Radio Soxna FM mu doon El Hadj Ousseynou Diouf numéro 11 équipe nationale. Ok, Hadj Diouf pour boppam première émission PNJ Soxna FM tombeeg El Hadj Diouf mu affaire bo xamante c'est inoubliable. à travers appel am boobu mu am ñeneen appel et tout émission bi jeex mu copain xol leen yane jour ñoo leen commencé nous ne ko jour bi jour bi heure bi heure bi c'est là-bas qu'on nous a effilé notre programme si cinq jours yi par exemple ben jour boo xamante ay artistes lañ doon invité suñu émission radio. ñu ne ñu proposer nous une émission télé et puis à travers nos émissions radio, ñu jël si RDV des branches RDV des branches bu ñu doon def nous moom lañ ñoo def télé artistes yu ñu doon invité radio. pourquoi pas nit yi di ñu déglu gisaale leen mu doon ñaar déglu ak gis moom moo doon tey RDV débranché. ok damay ñëw ci beneen question question bi ñu ngi ñaar laa koy boole quoi. yaa parce que je veux savoir yan relation ngeen am ak PNG family. on une famille. Mm-hmm. léegi pour ñëwaat si PNG family boobu P ak J ak family bi ñun bëgguñu nga naan suñu fans yi fans PNG on n'aime ay soppe PNG ay fans PNG ñun bëgguñu lool on préfère tout le temps nga ne la mi fa PNG. moo gën a rafet quoi j'aime pas quand on dit fans ñi ay fans PNG lañ. man je préfère que tu nous dises ni mi faa PNG lañ bokk. par respect quoi par respect. suñu ne PNG family ñaar lañ ñu ko wax tay nuñ déggowé ni man ak ji. aduna mhm. do musa neex bañu ñu xuloo ndax aduna mhm. do neex bañu tu vois kon tay concept bobu ñu am bobu lañ bëgg incarner. Mhm. mi fa bi. concept bobu ñu am mom lañ bëgg dundulo mi fa bi entre ñoom ñu xamante entre ñoom ñu doon ay frères ay sœurs entre ñoom sax ñu gis fi ay mariés parce que PNG tey grâce à ces émissions am na ñoo ils se sont mariés à travers l'émission radio de PNG. tout à l'heure ñëw nga ci affaire ami invisible mhm. am na ay ñaari ami invisible yoo xamante ne dañu marié wu hmm. dañ leen invité après rajo ñu wax ñu seen histoire Awa Jawara ak Xaadim tey fu ñu muntu dem fu ñu muntu dem on va aller avec cette MIFA là hmm. les enfants les jeunes comme les adultes. ok kon c'était votre émission mon animateur préféré avec les jumeaux PNJ. alright peace and love. Uh, one, two, three, four, booty five. I like my real thick, little Richer than your old head, nigga, no lie. Sex in the pussy G spot. gentleman, fucking never Check out that water.